hi everyone ladies and gentlemen brothers and sisters welcome back to the channel tey suñu leçon dafay wax ci school kon ba tey génnagun ci school muy école bi ñi ngi nag ci classe bi incha allah rabbi première partie bi mën nga ko fekk ci commentaire bi jiitu ci suuf euh, mën nga ko fekk itam ci description bi nga bàyyi ci xel te seetaan ko lii mooy deuxième partie bu aju ci école ñuy wax ci classe bi tey nag li ñuy wax ci classe bi mooy the 20 classroom rules maanaam ñaar fukki sart yi nga xam ne ni moom lañ teg euh, muy dox ci képp koo xam ne ni ci classe bi kon ñaar fukki sart yi na ko élève bi bàyyi xel bu baax a baax tey lool lañuy jàng let's jump right in ñaar fukki sart yi nga xam ne ci la kalaas bi di dox bi ci jiitu mooy Don't laugh at people in class. bul reetaan nit ñi ci biir classe bi bul nit ñi ci biir classe bi su nit tontoo juum wala mu doon jiim juum bul ko reetaan parce que loolu day tax mu découragé loolu daf koy yokkatloo kon sarti classe bi bokk na ci mooy don't laugh at people in class bul reetaan nit ñi ci biir classe bi raise your and wait to be called on raise your yëkkatil sa loxo and wait to be called on te nga xaar bañ woola élève bu jàmbaare te topp sarti kalaas bi maanaam règle yi classe bi doxee su jàngalekat bi laajee dafa yëkkati loxoom ba jox ko ndigal ci mu wax mu daldi soog a wax ba mu ni ko Demba waxal wala Faatu waxal wala Ndey waxal mu daal di soog a àddu baneen règle wala baneen sart mooy be helpful and responsible na nekk kuy dimbalee be helpful su fekkee sa moroom élève xamul benn baat da nga xam ko nga dimbali ko wax ko ni ko baat bi nii la su fekkee dañuy jàng leen nga tane ko ci nga jàppale ko kon be helpful and responsible te nga nekk ku way responsible mooy ku nekk responsable ça veut ni nga way li nga xam ni classe bi da koy bañ nga koy moytu li ñu digle nga koy def di teel a xëy su wàcc jotee nga ci ñibbi bañ a fo ci classe bi bañ a reetaan kenn ci classe bi nga amaat banee mu ni be on time for class be on time for class lan lay tekki mooy deel ñëw heure ça veut dire que ni bul taxawaalu ñu war a dugg huit nga ñëw neuf heures wala ñu du war a dugg neuf heures nga ñëw dix loolu soo ko defee rek yaa ngi wàcc yoon wi moo tax mu ne be on time for class ngay ñëw heure maanaam ngay assister heure cours yi nga bàyyi ba bu heure bi jotee rek nga ñëw te bàyyi eh, heure bi weesu lu yàgg nga nekk ci li nga nekk right yow mi jàng bàyyi ci xel Don't drop rubbish on the floor. Don't drop rubbish on the floor. maanaam bul jël euh, ay salte salte wala bul jël mbalit ni ki nga lekk ba pare euh, xott yeeg carton yeeg lu demee noonu waaw nga jël ko di sànni ci suuf wala nga jël sa mbalit jël ko ci saak di sànni ci suuf loolu dañ koy bañ floor mooy room bi mooy ci suuf ci suufu classe bi ngay jël lu la neex rek nga sànni fi loolu baaxul élève bu jàmbaare bu topp sarti classe bi di ko def don't chew gum in class don't chew gum in class bul yee singoom ci biir classe bi don't chew gum in class bul ci biir classe bi parce que si ngoom léeg-léeg mën na nekk luy déranger maanaam luy sonalaate parce que ki nga xam dafa nekk sa wet ngay yëy si ngoom di saqami ah man nga ko xañ concentration li mu war a sëggee ci leçon bi ak ni mu war déggi déggee peut-être mën na am problème wara mu am jafe-jafe dégg normal nga bàyyi ci xel listen to the teacher déglul jàngalekat bi listen to the teacher déglul jàngalekat bi listen when others are talking te nga déglu su ñeneen ñi di wax listen to the teacher yaakaar naa soo nekkee ci biir classe bi te du déglu jàngalekat bi mën ngaa génn kon loolu sart bu am solo la parce que soo du déglu jàngalekat bi wax dëgg yàlla doo comprendre la yi te lu baax de bari mën na la raw kon listen to the teacher déglul sa prof déglul jàngalekat bi listen when others are talking te nga déglu ñeneen ñi sunuy wax am na ñoo xam ne dañuy mbel mbeli rek soo ko defee ñeneen ñi sax duñ mën a wax su na ñuy wax ñu leen di yàqal wala ñu leen di dog kon soo nekk ci biir classe bi ngir yàlla del déglu sa moroom mi suñuy wax bi kind and fair to others na nga nekk ku baax te nekk tamit ku ku jaaru yoon fair to others maanaam nga ngay doxalal nit ñi doxalin wu jaar yoon waa doxalin wu maandu doxalin wu jaar yoon and always tell the truth always tell the truth saa su ne itam del wax dëgg gi waaw loolu bokk na ci jub loolu bokk na ci jaar yoon bokk na ci mbaax mooy ngay ngay wax dëgg gi di bañ di wax sofaan moom di wax lu du dëgg one person talks at a time bokk na ci sart yi nga xam te ni moom la kalaas bi teg te élèves yëpp war ci dox mooy one person talks at a time par kenn mooy wax maanaam ñëpp duñ waxandoo su kenn dee wax ñeneen ñi dañuy déglu kon loolu ci sarti classe bi la bokk one person talks at a time par kenn mooy wax waaw su kenn dee wax kon dañuy déglu ba mu noppi kon kenn mooy wax waaw su kenn ki waxe pare keneen jëlaat mais waxandoo du am ci classe bi dañ koy tere don't eat in class am na classe yoo xam ne dañuy tere ku fa lekk dañuy tere ku fa lekk waaw don't eat in class dañuy tere nga nekk ci biir classe bi naa da ngay lekk dañ koy tere peut-être nag am na élèves yoo xamante ni suñu nekkee ci récréation bi li ñuy woowee istaraha ci arab eh, dañuy lekk ci biir classe bi mais peut-être lay lekk mën nañ ko bañ a tere waaye daal kii moom nee na don't eat in class ñoom seen classe dañuy tere ku lekk ci biir follow directions toppal ndigal yi follow directions toppal ndigal yi ça veut dire ni liñ lay digal na ko def liñ lay tere nga bàyyi ko mu teg te liñ lay jox sa jàngalekat nee na defal nangam def ko bàyyi nangam bàyyi ko ok don't throw things in class bul sànni dara ci biir classe bi don't throw things in class bul jël ay affaire wala ay mbir di ko sànni ci classe bi dañ koy tere waaw loo jël rek sànni ci classe bi mel ni ko yor ab sën waaw mel ni ko yor poubelle dañ koy tere don't draw on the tables or walls don't draw on the table bul dessiner ci taabul yi or walls wala ci miir yi am na ñoo xam dañu bëgg di dessiner lool foo leen fekk rek dañu bëgg di dessiner dañuy tere nag nga dem ba ci taabal bi yor sa biig loola neex nga bind ci waaw fii nga dessiner fi lii fii nga dessiner fi lii dañ koy tere dañu bañ tamit nga jël keneen bi dem ba ci miir bi wala sa biig di bind rek di dem lu la nga dessiné bu la neex nga ni fii oto laay dessiné bu la neex laneen loolu dañ koy tere ci biir classe bi kon draw mooy dessiné tables mooy ay table walls mooy ay miir miir yi dañuy bañ ko ci dessiné table yi dañuy bañ ko ci dessiné all right respect others na nga wormaal ñeneen ñi respect others mooy na nga ñeneen ñi be kind with your words and actions nga nekk tamit kuy rafetal say kàddu be kind with your words mooy ngay rafetal say kàddu ngay gédd kàddu yu rafet bul di génn genn kàddu gu ñaaw mooy bu baax ci say kàddu na ngay rafetal ci say kàddu be kind with kàddu nay rafet say jëf tamit nay rafet ko loolu ci sarti classe bi la bokk keep hands feet keep hands and objectives to yourself itam ngay téye sa loxo yi moom ngay téye sa loxo yi and feet te nga téye sa tànk yi objectives li nga xam ne say bagaas la to you ci sa bopp sa veut dire que ni am na ñoo xam suñ toogee fii lañ jël sànni fa tànk feeñ jël sànni fa loxo su ko defee léeg-léeg bu fekkee sa loxo fu la neex sànni ko mën nga fàtt nit mën nga gaañ nit man nga nit di bind nga yàqal ko kon sart yi nii jàngalekat yi war na ci bàyyi xel bu baax élève bi nga xam te ni mi ngi may seetaan itam mu bàyyi ci xel su demee seen classe mu jim ko appliqué parce que lu am solo la téye sa loxo yi sa tànk yi nga téye ko bul def fu la neex rek nga sànni fa tànk loolu dañ koy tere ci classe bul def tamit fu la neex nga sànni fa sa kaye fu la neex nga sànni fa sa saak objectif mooy say bagage jëmmam na ko téye ci sa bopp teg ko fi nga ko war a teg work and play safely na ngay liggéey ci sécurité maanaam qualité te sooy fo tamit nga fooyee ci sécurité sa veut dire que ni bu dugg ci foo moo xam ne mën na laa gaañ waa parce que élèves yi léeg soo leen bàyyee dañuy dugg ci foo moo xam ne mën na leen gaañ wala mu loolu leen kon classe bi dañuy tere nu la neex def waaw nu la neex fooyee dañ koy tere dañuy bëgg tamit sooy liggéey nga liggéey am xel bu baax ba doo loru waaw work quietly na nga liggéey ci ak dal work quietly lu am solo soo nekk ci biir classe bi da nga war a liggéey ci dal mais waroo euh, liggéey liggéey boo xam ne bruit lay àndal parce que loolu baaxul do not disturb others bul sonal ñeneen ñi wala buleen leen déranger disturb mooy déranger do not disturb others who are working bul déranger wala bul euh, sonnal ñi nga xam ne dañuy liggéey su nit dee bind na ko bàyyee ba mu bind sooy wax ak moom nga soog a wax ak moom su fekkee dafa nekk ci exercice exercice am nga bàyyi ko ba mu pare nga bañ ko sonnal moom bu sonal ñene ñu suñuy liggéey bu leen déranger always work hard saa su nekk na ngay liggéey liggéey bu ànd ak jom na ngay liggéey bu baax always work hard mooy saa su ne de liggéey bu baax and do your best te nga def li nga man lépp yaa ngi dégg su ko defee élève moom dafa war a góorgóorlu élève bi dafa war a góorgóorlu ci liggéey bu baax liggéey bu baax suñ ko waxee ci biir classe bi mooy li la war nga koy def di jàng di xool li mokkal leçon yi lu la tariloo nga tari ko suñ di joxe exercice nga nga nga lijjanti ko loolu mooy liggéey bu baax ci biir classe bi always have homework tey ngay jot ci sa exercice waaw nga def tàggatu li lay jox ci exercice nga koy fonk and supplies tamit ngay am tamit ay bagage waaw di fexe di am say exercice di ci jot macha allah baneen bi ci topp itam ngay am ay jumtukaay supplies mooy ay jumtukaay kon bu ne school supplies mooy jumtukaay yi nga xam da nga koy soxla ci école bi lu mel ni ki bic cahier ak yooyu loolu la na supplies mel ni sac ndax am na élèves yoo xam ne ni jumtukaay duñ ko matal waaw kon sooy jàng dangay ngay jim di góorlu di am jumtukaay yi nga xam ni mooy yombal sam njàng ci biir classe bi te sa jàngalekat di la ko laaj mu ni cooperate with your teacher and classmates muy uh, tomb bu am solo ci sarti classe bi muy cooperate with your teacher mooy ngay ànd di liggéey cooperate suñ ko waxee mu ànd ak nit ki liggéey cooperate with your teacher nga ànd ak sa jàngalekat déggoog moom lim la def lu lépp nga koy def waaw nga xaritoog moom and classmates tamit nga déggoog ñoom di jàppalante ak ñoom ok bi ci mujj nag mooy keep your work neat and organized nga fexe sa liggéey muy rafet keep your work neat mooy nga fexe sa liggéey sell and organize te mu nekk loo organiser maanaam lu nosew kon tamit élève bi war na góorgóorlu ci loolu mbokk yi lii moo nekkoon suñu leçon tey ñu leen di fàttalee rek képp ko xam te ni abonné ko nga abone bés kolos bi ngir bépp vidéo buñ dugal nga man cee jot su ko defee di leen fàttalee rek ñu ngi def cours yi ba tey ci whatsapp bi képp ku ci bëgg bokk nga def 75 634 34 98 ba beneen yoon goodbye